Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn. mbokk yi jërë ngeen jëf euh, di rafetlu bu baax a baax ànd beeg seen euh, site bi ngeen taamu Tawfekh euh, Production yu mel ni boo leen gisee image yi tamit boo leen déggee ñu ngi fii si Massalikul Jinaan jëm ci inauguration bi jëm ci tamit ubbi bërëb bi ñoo ko amee le 27 septembre fii ci Massalikul Jinaan si njiitalu Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides ñaan mu yàgg fi loolu te ñu nekk ba léegi ci euh, xew-xew bi xew-xew diine xew-xew yoonu murit di xew-xew mag ñu jàkkaarloog sëriñ ak sëñ Saliou Gueye Badar sëriñ Saliou Gueye Badar jëmm ji nga xamante ni wax dëgg yàlla miin ngeen ko loolu jëmm ji ngeen ràññee jëmm ji ngeen xam sëriñ Saliou Gueye euh, Badar askanuk Sénégal xàmmee la si wàllu taalif yu am solo wax dëgg yàlla tey jii nga ñëw fii ci Massalikul naan di bërëbu sëriñ Touba tey su may wax sëriñ Saliou Gueye euh, Badar ban yëg-yëg nga am tey jii ñëw fii ban yëg-yëg waaw mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu te leen ziar di jiital ci nuyo bi cheikh Mouhamadul Mountakha moom mi fi toog jotaab cheikhul Khadim waaye noo leen ziara mbooleem kilifa yi diine nekk ci réew mi di kilifa di ziare taalibe yépp fii nag moom waxuma la ku yab murit waaye képp ku yab jullit rek te bëggul lu baax boo fi duggee sa dina tooy rawatina nga xamoon histoire Serigne Touba. ak bi mu ñëwee fii ci ndakaaru ak la mu fi daj ndax ku ne xam na ne bi muy dugg fii ci néeg bu lëndëm bu xat bu tuuti boo xam ni niñ koy xamee ñu ni mu tuutee ci zaahir sa daanaka xaju fi woon ba mënu woon a julli ni ko sëñ Moussa ko waxee daan ni am na fa ñaari fan am na fa ñaari guddi lékkul naanul loolu ca leer yàlla kooku neenul wax ne itam ni suuratul Baqara ak suuratul Ali Imran la fa doon jàng nga xam ne sax mënu la mënu la sujjoon ngir noonu ko sëñ ko waxee 2019 nga gis jumaa ji ni mu toll bërëb bi ni mu toll yaatu loolu ci murid fu ñu neex dugg fu ñu neex génn ci biir ndakaaru gi nga xam ni suñ borom ku mën a fay la tafe na sëriñ Touba. Mhm. Mhm. sëñ Saliou Gueye euh, ba daal di nga ko waxee rek wax dëgg yàlla jëf ju nekk jëf ju yéeme mu xolu murid yëpp tooy na maanaam yow euh, lan nga gis si askanu Sénégal wàllu message boo leen lancé par rapport ak ouverture bi ak ni ñu ci war a doxee. waaw ni ci war a doxee rek mooy ni sëriñ Touba jàngale ceeb ak taalibe te murid tamit kuñ xam ceeg taalibe la muy yaatal ubbi suñuy xol ubbi suñuy dënn ndax jaxasooy doomu aadama nit ku xat mënu ko nañ yaatal suñuy dënn te lii mbégte la waaw ma jàpp naa si benn murid waru cee mer même la bu la nit defee la naqare sax na ko bànneexoo ngir lii bànneexu Serigne Touba di mbég moo xam ne am na ko fii ci digg Ndakaaru man nag ma gis ni Serigne Moussa waxoon na ko ndax waxoon na bi Serigne Touba bi ko suñ borom waxee ci géej gi jumaa yi mu war a am waaye nee na ko da nga tabax jumaa ju réy ci réew ma fan mooy réew mi ndakaaru doo ko wax nag da nga tabax jumaa ju réy ca Jurbel waxaat ko da nga tabax jumaa ju ca Touba waaye nga dégg teen mu ko da nga tabax jumaa ju réy réew ma te fii mooy réew mi nga xam loolu kon bokk na ci yi nga xam ne suñ borom dig na ko ko bis ni ko tey jot na ci suñ borom dimbali ñu ñu nag ñu fekk ko ci taw fee xam ba man fee teg sunu tànk ñu waxat alhamdulilah rabbil alamin li ñu wax daal mooy bépp murid na gën a yaatal dënnam tënku ci taalibe bi ak taalibe bi boo ko defee doo lor kenn doo sonal kenn te fii nag kenn wuru fee loru kenn wuru fee sonn ndax képp ku fi ñëw Sëriñ Tuubaa nga ñëw fi mbégum Sëriñ Tuubaa mi mu am ci biir digg Ndakaar moo tax nga ñëw fi waaw daal laa ci dénkaane ci côté boobu Sëriñ Saliou Gueye Badar mu mel nga tamit ci wàllu taalibe nekk pàcc bu solo euh, ci comportement bu weesoo euh, inauguration bi ban comportement la war a nekk ci bërëb bi ni nga dundalee waaw bërëb bi moom na ko dundalee rek ci taalibe bi Sëriñ Tuubaa dafa wax ne tariqatul adabi rahmatu saghir kal abi wal ummi wa tawxirul kabir wa jaalu mislika kanafsika sawa li waci xaaliq na al asi sawa nee na yoonu teggin ñett rek la mooy nga def ni nga def ni nga def sa bopp koo gis nga def ko noonu beneen bi ci topp itam nga yërëm ñi nga xam ni yaa leen mag di fonk ñi la mag lii képp ku ko doxalee di nga am ah, jàmm fii di nga may ñëpp jàmm itam kon li ñu wax rek ab taalibe li mu war doxee moom mooy tënku ci ak taalibe ni ko maam Cheikh Ibrahima Fall jàngale woon te taalibe nga gis ni itam Baye Fall noonu la doxe doxee ñu gis nit jàpp nañ yaa leen ëpp daraja dañ lay bàyyi daraja ja kuy xëccoo ñoom daraja ñu jox la ko fuñ fekk nit tamit toogoon ci kawas buuri ke ñu jox la ko ngir lan gis sëñ Tuubaa ndax ni ko alxaaji Mbàkke yu fay waxee fii léegi loolu rek mooy am muy ni lépp sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa a kawe keneen ku dul sëñ Tuubaa ab nga bu fekkee ne sax sëtu sëñ Tuubaa yi di ay doomam dañoo jàpp seen bopp ay taalibe kon ñun ñi di ay taalibe képp nag a woyofal suñu ay taalibe képp nañ ku xam sëñ Saliou Gueye Badar xam ko loolu ci wàllug bind ci wàllug taalif nekk taalif yi nga xamante ni askanug Sénégal ñëpp ñoo koy béggee ndaxte mi ngi koy fësal ci internet beeg fépp ñëpp di ko di ko teewlu sax dama koy teewlu sëñ Saliou Gueye euh, Badar est que am nga noo ñu baaxee ci jumaa ci wàllu bind rek waaw ah mbir mu mel nii moom toll nii moom mënut a ñëw muy bàyyi ñuy bàyyi muy jàll te niñ ko wax rek taalif dafa bokk ci cosaanu yoon yoonu murit sëñ Tuubaa suuxat ko ndax sëñ Musaa Ka da ko daan woye ci arab waaye sëñ Tuubaa dane ko yonent bi sallallahu alayhi wa may way dafa nekk ab naar moo koy moo tax moo koy wax moo tax ma koy way ci làkku yaaram muy arab waaye yow deema way ci wolof ngir nit ñi xam li may wax nga xam dafa bokkoon ci euh, cosaanu yoon murid suñu borom nag taw feexal ñu bokk ci yoon wi gën cee xeeb nag waaye ñu ngi ci nab nabi lii bokk na ci bayit yi nga xam ne defoon nañu ko ci masalikul jinaan bi nun sant nan santati nan xaadim rasul moom mi nu wan yoonu njëriñ wi gaaw te gën jaaraama xaadim rasul sa yoon wi daala neex ta xew dëgg ko samp bam taxaw doy na nu nun doy ca kaw mooy leen ci xaadim rasul ndam lii nga am tey biir Dakar jot na sa yi xam bu wóor ni yow sa mbir du nax du nax du dóor kii man nga xaadim rasul jumaay masaalik yéem na tey noonu ya ni woon daañu la ray wallaahi yàllaa mën a fay tey fay na xaadimu rasul bañ la jëlee ndar indi la fii ci Dakar ngir sànki la bis booba bis bu mett la lor nañ fa xaadimu rasul ba mu fi ñëwee noon yaa ko fat ci néeg bu lëndëm xeeñ taxat lu ñu xam ci tiis ak aw metti teg nañ ko xaadimu rasul tiisoon na lool ba mu noonu dafay wut xeexukaay kum jekku rey njool maaka bañ mu sooke ay aaya ko xaadimu rasul ña jëloon def ci saxaar buñ jël siwaatoon biir Dakar ba gis jullit yëpp di xaar Cheikh Mountakha xaadimu rasul mu jóge Touba kuy mbindeef bàbbee ku ñëw ci moom di boof ñii dawe Kambureen ba Yoff ngir sopp Xaadim Rasul oto yi wër kook ay mataar soldat ñëw ngir du ko aar muy bég di ak taar bi kaar buur fay na Xaadim Rasul ñii wuti seen ànd di suur mbedd yee siñ bi nar a jaar ñee jëli parfum yi di tuur ngir bëgg Xaadim Rasul mu woy masaalikul naan bara birus loo ko añaan wër na ko julli jàngi ñaan ñaanal fa Xaadim Rasul kenn mus la gis ci senegal jumaa ju nii ci misaal waa mi def kook seen àllaa lut gaay xaadim rasul yii naar yi ñoo na ko sarax yii mun ta yegg fër na tax muridu ñoom dëkkee tabax jumaa yi ngir xaadim rasul ñaar fukki milliards ak lu teg lañ def masaalik ngir mu jag murid yi maase di ca bég tey sant xaadim rasul li nga fi dajoon ci wépp ay ak ña fi daa jéem lu la rey jumaa ji far na lépp tey jaaraama xaadim rasul ndakaaru giñ la doon sonal am nga fi tey lu kenn amul yow ku la def moroom xamul kenn nga xaadim rasul xasida yaa ngi jib ca kaw benn yaatu lool te leew penc mi yaa comme neex nga ñëw di dund xaadimu rasul kafe yi tàng lool di fuur ndawal gi duuf ñuy jël di sóor ku yegg si naan lekk ba suur tey sant xaadimu rasul murid yi ñoom seen mbir du yam moo tax li ñëw ci xeeti ñam kenn mun la xam fu lim bayam ñoo xir ci xaadimu rasul nun bu nu neexee zibile jumaa ju rëy lañ yeggale amul lu nu amul lu nuy jéem bëtale nun gaay xaadimu rasul nun bu nu neexee zibile jumaa ju rëy lañ yeggale amul lu nuy jéem bëtale nun gaay xaadimu rasul président Wade na jox bërëb bi ban man koo tabax murid yi sopp nañ la ndax sëg bëgg xaadim rasul lamp yi ak yoon yi ko wër makkee ko liggéey ci lu bir yëgal ni sant nañ bu wér nuñ koy xaadim rasul Cheikh Bass itam jàmbaar la ngir mboolem liggéey moo ko yor mu ko ku jàmbaare tëxër soldaaru xaadim rasul jàmbaar la lool mbàkk yu fay yàlla na ko yàlla gën a fay moom xaddiwul boobu ba tey ngir bëgg xaadim rasul xalifa yee fi jiitu woon defoon ci mbooleem luñ amoon war na nu fàttaliku leen ñoo doon xaadimu rasul Cheikh Sidi Muxtaar moom itam am na ci ndam lu ñëpp xam yàlla na ko bu dolli ngërëm ci barke xaadimu rasul Cheikh Muntaxa tey am nga ndam yu bokkul ak yang daa fi am yàlla na nga yàgg ami ndam bi jaaxe xaadimu rasul war na nu ñaanal ko bu wér mbàkke mu sax fi loolu te wér te mucc moo ko dar ci barke xaadimu rasul saalihu gay badar mile dalal te tëj saway wile daam raw nañi raw ñoo ñële kiimaan la xaadimu rasul Euh, euh, sëñ Saliou Guèye Badar mu mel ni euh, inspiration bi ni mu nan la lay dikkee ndaxte lii wax dëgg yàlla am na solo loolu di dikkee xol yëpp toy nañu. waaw waaw ni ñu dikkee nag mooy yëg-yëg lay doon ci ñun rek ndax sëñ bi moo ñu koy def defloo ndax nekkul luñ jàng léegi léegi way daal li ñu wax leer la rek sëriñ Tuubaa nag ni mu solee woon sëriñ Mbay Jaxate defoon ko sëriñ Moussa Ka defoon ko sëriñ Mor doon donte sax yëgguñu ci ñoom egguñu leen ci wàq waaye lii ñu am sëriñ Tuubaa ñu ko defal. moo tax itam jamono ju nekk itam ñu ko ci sargal di ci taxaw ab liggéeyam di ci taxaw ab yoonam loolu rekk ñu tax a jug liggéeyal ci Serigne Touba rek di ñaan itam jamono ji nekk mu ñuy nangul sunu liggéey. déedéet eh, tool nga xool yëpp sëñ Sall. waaw jërëjëf kontaan nañ lool asalaam. te poème bi taalif bi neex na lool. jërëjëf bëgg nañ lool jërëjëf kontaan nañ lool sunu xol seet na. mu nekkoon euh, Serigne Saliou Gueye Badar ab taalifkat di ab bindkat wax dëgg yàlla mu tooyal xol yëpp ndaxte euh, ku déglu kàddu yi ku déglu bind mi di nga xam ne ci xol lu ko jëlee te lu jóge ci xol tàbb ci xol Tawfekh Production ñu ngi koy jaajëfal bu baax jaajëfal Moutala Gaye ci wàllu caméra bi leen jox dig dañu yàggatul léegi ak beneen entretien Massalikul Jinaan 2019 ànd ak Tawfekh Production jën ngeen jëf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 Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn